بحر سرين وسنائي سمس رشدين واعتدائي جنة القال بامتدائي لملاصي وصرائي لله رب العالمين خد فاك قبل حد باشا فضل الله فضل الله وانا في جاهي ñu ngi leen di ziar yi suñu mbokk internet dakar instant باخ باخ safoo bu baax a baax fii ci seen émission bi nga xamante ni tey mun naa ni émission lay doon dal jàmm plus nag sax star à l'instant ndax yàlla dafa dogal ñu dalal fi ki nga xamante ni wax dëgg fa yàlla man sama dugg si ci ëtt bi sama tab bi itamit ci ëtt bi daf ma defum mbégte ndax dama fee fekk lu suufee lu nooy muy jëfub taalibe ndax ndax ndax ndax woykat ba nee na asiar moom lu la mayul rek foog naa du ko xañ damay dégg turam ñu naan Clayton man xëy na dëgg naa fit boora xam nga lu Clayr moom mooy lumière au nuur waaye waaye waaye toni ton leer moom bu tàbbee ci xolub jàmm moom wax dëgg fa yàlla foog naa ab tawfiix rek a ca war a am gis ngeen wax dëgg fa muy inal xasanaati yu si ibna say ati muy maanaam maanaam maanaam leer moom fu mu fekk lëndëm rek gàcceel ko ndax ci lii lañ ko fekk ci ajjana lañ ko fekk ci oyofteeg lañ ko fekk te daanaka euh, li muy woote maanaam loolu dëgg la ci moom ndax biñ biñ biñ biñ biñ ubbee barke baay la ubbee bi ñuy bi ñuy dalal barke baay ñasit la ñu wax nga xamante ni loolu loolu loolu lu dëgg la teyit luy luy rëfaleel la ci moom naturellement dañ leen koy bàyyi nag mu jaar leen yéen mbokku taalibe yi yéen ñi nga xamante ni ne safoo Dakar instant ñu doog a wéyal waxtaan wi kilifa gi ma ngi lay jaar. Ah, aleykum asalaam wa kontaan sa introduction de gàmm la. wa ta ci ta ta ta gàmm lañ djub mm-hmm. waye la nga def ni introduction gàmm la. Mm-hmm. wax deug mm-hmm. ak jafé wa wax sa mbaxu morom. mir wala rek sa bop ngay wane ci wa ndax te man nga gis sa mbaxu morom di wax lu bon. itam sa bop rek ngay wane. waye kontaan lol lol lol ci dugusi bi bi. Euh, comme liñu wax rek ko xamul rek day kay woyee. ndaysan waaw.

lépp a ngi ci donc nag lii site bu ñu war a topp la. Ah, maa ngi jiital sama nuyu ci kër kalifa diini yëpp. Mhm. bàyyiwuñ kenn. Mhm. ndaxte foog naa ne raditu billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi rasul sallallahu alayhi wa nabiya mhm. foog naa ne kër kalifa diini yëpp kay woyoo kon nag ah, maa ngi nuyu kër kalifa diini yëpp. waaw di sàkku ñaan ci yéen ñëpp. waaye rawatina fi nga xamante ne comme ku nekk am na baay fi nga xamante ne fa laa juddoo. muy Medina Baye ci Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di nuyu xalifa bi di nuyu képp ku may xàmmee waa kër Medina yi ak ñi nga xamante ne bëgg nañ Clayton Hamilton en tant que artiste maa ngi leen di nuyu di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah yow moom sab sab sab ndongo lañ ndax dañoo dégg ci sa wax nga wax lu am solo mm-hmm. maanaam ndax nag euh, zaahiran wa baatinan tawaafaqa foog naa ñoom ñoo jaxasoo maanaam wax nga ñiy jaar Clayton ci jëmmi artiste xëy na loolu dëgg la jëmmi artiste waaye Clayton en tant que taalibe bàyyi ba pare fier ci ndax euh, man du ma wax lu ma gëmut fan yii damaa seetaan TikTok sa benn vidéo bu daw yaram foo xamante ni dafa bokkoon ci ay càlla la nga dem fa di ko waaye nag présenté woo ko en tant que maanaam ñuy gis cofeel bi nga doon dégager ci sa digganteeg baay foofu. ah Cheikh bi man de euh, baay moom wax dëgg xam nga nit bu la dimbale ba nga doon da nga juddu ñu lay ooyee tur ngay am ay xarit ngay jëf ngay def te la nga def yëpp zéro la waaye nag ka la doon loo ba lépp looy def nga xam fa nga koy teg kooku soo amul cofeel ci moom. mënu lo bëgg sa cede yalla euh Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dafa nek ko xamne ne man sama mami dañu juddu bokku ci tariqa bi. kon man dama juddu ñu ooyee ma mam bay waye li ma bëgg ñi ñi xam moy gannaaw bañ ma tuddé mam bay ta may ndokkeel sama ndey yi nga xamantene gannaaw bam doone sama sëriñ ngir sukku jur. mu tuddé ma nak suñu sëriñ. ki nga xam ne mooy sëriñam doon sama sëriñ. Mm-hmm. mu tuddee ma ko loolu itam maa koy delloo ndëkk. Eh, eh, eh, plus. waaw mooy Maam Baye plus. Mm-hmm. lu leer nga wax. <laughs> Ah, léegi nag Maam bi nga xamante ne dañ ko tuddee. Mm-hmm. mooy dund bi may dund. waaye Maam plus bii nag mooy kan mooy Maam Baye ak lanay Maam Baye ak la doon Maam Baye ci yow ak ka doon Maam Baye ci yow. tojal ma loolu. ci. mooy mhm. xam nga tey soo déggee ñu ne la ana nafsu wala afaqu mahma raaytaha ñëpp a nga koy wax mhm. waaw nga dégg ñu ne la waaw maay jubluwaay maay lépp te fépp foo jublu rek man la mhm. am na ku la ku la mën a taxaw ne la li nga wax ni xamul dëgg waaye nag man fa may dëggalee loolu kala jox nga lekk kala jox nga naan ba nga màndi kala sol ba nga fees kala xam loolu loo doon waaye waxuma la cëri de waaye la nga doon lam doon ba mu leer na la ne lii nga doon te nga xam ne kii moo la ko doon loo yóbbu la ci yàlla nga xagg ci yàlla xagg ci yàlla bu wér nga wàcc di ko ràññee xàmmee gisatoo ñaar benn rek nga gis moo tax nag ma ne la doon mambaay ci man parce que tey suñ ma ne mambaay ma huyu soo ma ne Clayton ma huyu ku ma woowee Cheikh ma huyu mhm. waaye la doon xaqiqatan ca man la doon lam doon iman gi nga xamantene Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moo ko dugal ci ñun ñun ñi ñu xamé ko ta say boko laalé ñu yëg ko motax mané la lepp fop fop fop fo jublu rek mom la amul lenen ndax té gaay dañu nan li yengu ko yengal mo upp doole la yengu ak ka yengal ak ka yengal ak la yengali ñom ñaan ñep ñoo bokk maqama wallahi ah, man loolu la gëm wërna té moy dëgg la Euh, Cheikh Ibrahim Niass dit anhu fayam damay wax ne ñu wax la solution am na ñu répété am ñu ko gëm mais am ñu ko parce que euh, xam ma njëkk bala nga may jaamu kala ba nga a rek solution. dëgg la. ça veut dire que suñu borom mu bokk doon ñu ba moom ne la wa maa xalaqtul jinna wala insa illa li yaabudun kon nag foofu bul xool jinne ak insa déet ñu ñoo gën dëgg la waaye ñun ñëpp jaamu ji rek la yàlla soxla ci ñun léegi nag moom yàlla jooju ne la xam njëkk balaa nga may mën a jaamu déggal wax jooju mooy suñu buur moo ñu amal alquran a ngi fi diinal islaam a ngi fi wax nañ la iman ihsan al islam loolu yëpp nga nekk ci waaye ba léegi loolu yëpp mën nga cee nekkati ba léegi xamoo sa borom sa borom mooy lan leneen la leneen loolu nag mooy lan lu ruq mooy jege sa bopp mënoo xamee fenn sa boroom lu dul ci sa bopp waaye nag ci kan nga koy xàmmee ci sa moroom ah waaw parce que gannaaw ba nga fannaaw ki fannaaw yow la waaye yow googu nekkatul mu nekk di moom waaye nag ba nga baqaaw ba nga wàccee ba ñibbisi ci naasóot ngay gis nit ñu ne la kenn newu fi moom rek a fi ne mm-hmm. ñëwaat la leen kenn ki leen mm-hmm. kii ñëwee ko Modou kii ñëwee ko astu mm-hmm. kii ñëwee ko xujje kii ñëwee ko bisaab ah te ya nga war a kennal lépp waaw moo tax nga war a xàmmee sa boroom ci sa moroom waaye nag yow sa boroom mënoo koo xàmmee ci sa boroom mënoo mënoo koo xam ci sa ci sa moroom ci yow rek ci sa moroom ngay jotee sa boroom mooy jihaad nafsi bi nafsi boobu nag jaada nafs bi nafs boobu bokk bokk na ci buntu bi lay yóbbu ci tarbiya mm-hmm. waaw da ngay dëddu lépp ndaxte lépp dootoo xamati mm-hmm. lenn rek kay xam mooy naasaril xaq bi xaq bi mooy lan mooy bunt bi nga xam ne mooy yonent bi rasulullah alayhi wa mm-hmm. te bunt boobu Cheikh Ibrahima Niass ñun moo ñu fa yóbbu léegi nag ba ñu yóbbu ci buntu yonent bi rasul sallallahu alayhi wa sallam ah foofu nag baabul akbar ngi noonu yàlla na ñëw na xoog sa ndong li ne la kaay comme dugg nga fi ñëwal. kaay dikkal parce que kenn du la xamal yàlla yàlla moo lay xamal boppam. waaye nag bàyyi ñu teg ci yoon bii yàlla ñëw jël suñu pour xamal ñu boppam mooy ban yoon. yoon bi nga xamante ne Cheikh Ahmed Tidiane moom lay indi. Mhm. mooy salaatul fatiha bi nga xamante ne moom ngay téye jawaratul kamal bi nga téye ñu jox la sa askar nga ci ne. Mhm. askar yooyu foo ko jëlee. ku la jox. Mhm. fan la lay yóbbu. fu nga ko jëlee nga dem nag ba àgg foo xamante ne. ki nga nekkatul. ak nga doon tey. allahu akbar léegi nag soo demee nag ba dugg. Mhm. te ci buntu Muhammad rasulullah la wa sallam rek nga mën a àggee ci yàlla. buntu boobu kot. ndaxte moom bam nammee ñu mën koo xaw a ràññee wala xàmmee. Mhm. ci buntu boobu la xawee. Mhm. donc nar a ñëw ci moom rek ci buntu boobu ngay awee kon nag kooku nag moo tax Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nekk suñu solution. waaw solution bi ngay dégg loolu la. te léegi nag soo wàccaatee ci zahir lu terre à terre taalibe soo ko xoolee da koy xàmmee. moom foo ko fekk mu ngi kurusam. Mhm. lam ñaaw ñaaw ñaaw mu ngi ànd nag leer. waaw ndaxte ñaaw day am. Mhm. waaw waaw man mi damaa ñaaw ba mel ni golo waaye kenn gënumaa leer ndaxte salaatul fatiha yi may def. waaw léegi nag foo ko xoolee yére yi rafet wax ju rafet waxuma la kuy taalibe yéen tout. taalibe Cheikh Ibrahima Niass wala kaka bëgg doon di jéem a roy lu baax ci moom xam ndax dégg nga ma de. préciser surtout. waxuma taalibe wantu ka bëgg a doon taalibe wala kaka doon soo ko xoolee rek xamee ko. jaroon ngay wax ak moom ne ko foo bokk foo jokk ndaxte bàyyi na ne bët bi may xoole doomu aadama kenn du ko xool ko bañ léegi nag taalibeem wala kaka bëgg doon ci bët boobu rek lay taxawee ba foo ko xoolee rek da nga xam ne kii ci bët boobu la bokk kooku nag mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu man moom foog naa ne bëgg bi ma ko bëgg. la rey ci loolu fi mu toll nii. ndaxte. barke bàyyi ngeen sama bëgg bàyyi. wallahi laasim c'est-à-dire que. newul lu mu mën expliquer naan non parce que defal na ma li defal na ma li déedéet xoolal ba ma juddoo ba léegi la ma def sama àddina yëpp lu baax mm. mooma ndaxte lu ma xam kerse pour bañ a def doomu aadama moom laa ciy gis Mhm. xooluma ci sama yaay sama papa ñeneen dee moom laa ci gis. Mhm. ndaxte ràññee neen ma ci Cheikh Ibrahima Niass ma bañ a def loo xamante ne ci Cheikh Ibrahima Niass suñu ma ko merci beaucoup loolu nag mooy mbëggeel. Mhm. naka la ma bàyyi yare te fekkewuma ci zahir mooy nii mbëggeel bi ma bëgg su fekkee ne ngoo def ndax bëgg bi ma ko bëgg bëgguma ñu moomelee ko ko moom loolu mooy bëgg waaye loolu tamit nag mooy yar bëgg gu moom moo ma yar parce que loolu rek doy na ci yar nga xam ne ràññee na la ci Cheikh Ibrahima Niass waaye gannaaw bañ la ràññee nga bëgg ko gannaaw ba nga ko bëggee ngay bañ a def yenn ñu ñaaw ñi ndax bañ ñu moomale ko ki nga bëgg xoolal jaar jaar waay mooy yar bi nag kooku mooy mooy yar bi ma yar ba moo tax nag ah, man du ma ne yàlla ñu yàlla fayal Cheikh Ibrahima Niass waaye yàlla ci boppam maa ngi koy ndokkeel ci amal bi mu amalee Cheikh Ibrahima Niass pour ñun donc moom yàlla laay ñaanal di ko jaajëfal ci jëf ju baax ji def moom ak mag yu baax yi fi nekk yëpp. parce que comme li ma la wax rek tey jii ni soo demee ci muridullahi raditu billahi rabban boobu la ñuy tàmbale yàlla yonent bi rasul sallallahu alayhi wa sallam kitaabullahi mooy alquran diini ji nga xamante ne yonent bi moo matal diini ji ci loolu yëpp la ñu attaché wu ñun ñëpp kon tey jii nii ah, képp kuy mag boroom kër di xamale kala tabaxal sa kër ngay xamale ñi ñi nekk sa kër mm-hmm. nga leen di xamale ne kala sa kër parce que parce que kër gu nekk ku nekk kay orne lim la neexee waaye ñun ñëpp ki ki la defar sa kër moo defar sa kër kon nag yàlla ñu yàlla fayal mag yu baax ci barke Baye Yaara macha allah rabbi fu mu ne nii xol yi daa tooy xol yi daa neex ndax nag lu jugee ci xol ci xol rek lay dem man barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñi may seetaan di samay xarit xam nañ xam nañ ni ma mel ci maam Baye. <laughs> yàlla dogal na sama cantukaay gi may cantee muy <laughs> kurus gi man surtout baay moo ko jox. ne ni boo demee sama kër ay garaam boobu nga fa ay koppati ñu ngi fa ñoo ma ko jox ndax ndax xam sama sama cofeel mm-hmm. ci ñoom ci naasiril xaq bil xaq parce que maanaam. yàlla dëgg rek la xam xàmmee. Mm-hmm. yàlla dëgg rek la xàmmee waaye claire yàlla dafa dogal mm-hmm. ñu bari dañuy daw TikTok mm-hmm. surtout fan yi nag di xaar say jikru la ndax nag gàmmu dëgg la dafa yàgg am waaye bokk nga ci ñu fi njëkk a ndax man man teelu naa ko ndax sa TikTok maa ngi ci abonné yàlla dafa dogal notification yi dama ciy jot dama dugg dégg bit bi toog ku dégg rek da xaar dara. ndekete ndekete ndekete annonce ba la ah, man de li may njëkk a def mooy maa ngi delloo njukkal képp kuy acteur buy dox ci siiwal guddi yonent bi sallallahu alayhi xamaa la ko doon wax léegi tey jii nii soo demee Touba gàmmu dañ ko fay def dañu magal yunus bi rasulullah alayhi wasallam sallam dañu def ay tante fi ni ci dakar fi sax parce que yunus tu la ñu ñëpp ko pas kon xam nga wax nonu so mm-hmm. soo demee Tiwaawan nonu qadari mm-hmm. nonu mm-hmm. laayani nonu parce que goudi yunus bi li ñu magal xam nga euh, waa kër baay xam nga lan moma neex ci keur bay manam su gamu jote mais da ngay xol ñaawon ñëpp rafet waaw. dëgg la waaw. am teen xeesal. salaatul faatiha la ñuy diwoo xees pecc. nga xool artistes yi nga xool zikarkat yi amatuñ yitte amatuñ dara lu dul gàmm gi ba si yonent bi rasul sallallahu alayhi wa sallam gaa yaa ngi yuuxu ci tiktok bi man képp kuy sikarkat wala artiste ngay taalibe Baay dama lay c'est-à-dire que maa ngi lay ñaanal di la yëkkati te yow taxoo may def yonent bi rasulullah mm. alayhi wasallam may tax may def yow taxoo may def baay bi ñu bokk tax may def mm. yow taxoo may def waaye ki ngay tagg te ma koy tagg ay way soo ko taggee war naa laa jàppale ñëpp la dégg la ci àddina taggal ma ko ah taggal ma ko nii ilaha illallah ñas la. إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا الله هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدال الناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وهما نواله لا اله الا الله الله الا الله كوكو bay non la doon annoncé guddi yonente bi mm-hmm. ani ali ilaha illa ilaalu daf ka dan daf ka dan wax di wax di wax ndax xam nga bay dafa non nit bo xamante c'était quelqu'un de très émotionnel mm-hmm. ta dafa bëggoon yonente bi bëgg bo xamante dafa jéggi dayo manam manam ñi ñuy sikkare sax ngay ngay yëg maam bàyyi dafa émotion bi dafa bëri won ci yonente bi la majorité tout les trois quarts de eeru zikri ngay dégg yëpp ça vient de lui mm-hmm. et pour te dire que dafa amone yité ci yalla yàlla. bàyyeewuñu ko nii déedéet. dafa jitu ci mom ba pare. est-ce que tu comprends ce que je veux dire légui pour revenir ci gàmmu gi. amone na fi ay mag yo xamante du amone na fi sax am fi ay mag nak ñu ngi fi ba légui yalla yalla yok sen sen sen taxaway guddal sen fan ñom dadi di Bibson ah bidiw bu bees. est-ce que tu am amna ay artistes yi fi nekkon daan wëy baay. tey jii nii nga xool am nañ man sama sama grande sœur boo xamante ne Zeyda ay doomu baay mu ngi fi yaa ngi dégg ay ñoom Zakira ay ñoom ñu sikkarkat yu bari yaa ngi fi mm-hmm. waaye la ma leen di ñaanal mooy yal na leen yàlla may yéexu dëgër xam-xam bu gën a yokk baat bu gën a saf yàlla mm-hmm. ndaxte tey jii nii mën naa laa wax ne ci ndakaaru njaay mm-hmm. quatre-vingt pour cent ci ñiy dundal baay ci xolu nit ñi ñoom la kat yi nek medina baay ñii tudd yalla, sikarkat yi yépp ñi nek fi dakar ak fepp ci àddina bi kat yi nga xamanteni ñi ngi wey bay mm. dañuy dundal ci xolu jaam yi cheikh ibrahim sallallahu anhu donc ni c'est normal que man de dina len wax len tiktok bi ni, mm-hmm. jamono ji ni talibé bayé ko moom mm-hmm. wallahi lazim fo tourner yaa len fay fek mm-hmm. ndax lan du sen mënin de nak def nga ci liggéey waaw ndax ndax suivre nañ ko ndax man <laughs> ma man man man yàlla dogal xëy na laa xam moi je suis artiste comédien. ndeysaan ah macha allah. yow kay damay damay damay suivre. Uh-huh. gars yi ndax ñun yow sa jëmm yow. bi ñu koy uh-huh. suivre. Uh-huh. sax du woon ci zikr. ndeysaan. ci artiste la comme comme ni ñu ni ñu suivre yeneen artist yi. mais maanaam li ma la waxoon sànq mooy zaareno baat nan fa ndax ndax ndax day nduru day luñ ne ñuul na. maanaam boo dee boo dee nit buy jëfee ndigal bu ñu nee ñuul la sa kilifa bu nee ñuul la neel kukk bu nee weex na nel tàll bu nee xonk na nel cur ndax moo lay may ndam hmm. te loolu da fa faa appuyer Clayton ci TikTok bi bañ gis ko ndax dañuy gis live yi fu mu ne nii dafa gën a bëri dafa gën a bëri ndax chaque jour yaa ngi koy def te yaa ko campé foofu ak zikurlaa bi di bëggal xolu jaam ñi la xam nga dafa am <clears throat> lu ma am habitude def hmm. man Babacar Thiam mën naa laa wax ne sama sëriñ la hmm. ndaxte dinaa la wax lu lu lu garaaw mm-hmm. euh, eeru sikkar rek lépp ci moom laa ko jëlee mm-hmm. mën naa laa wax ne comme bàyyi moom itam moo ma yar mm-hmm. euh, nit ñi bëgg neen baay bëgg neen lépp lu lu saf baay su ma duggee ci TikTok bi di wax ci yàlla ñi ñaa ngi may déglu parce que peut-être que ni ma koy indee ni ma ko indee mooy lan mooy ni ma ko bàyyi parce que indiwu ma fi lenn. merci beaucoup. <laughs> léegi mais bu ànd ak pédagogie jox lay exemple yoo xam ne yaa ngi koy dund tey ci sa àddina te alxuraan nga la koy wax waaye yow déggee woo ko noonu ma déggal la ko nii nga déggoo ko ne ah. waaw parce que yaaw li baab du ñëpp waaye ñi yàlla may chance mm-hmm. donc man mii sax maa ngi ñaan bëgg cee bokk. waaye bàyyi nag bokkuloon na ma ci ndaxte moom ulilal baa bi magi ci la bokk donc dégg-dégg ji moom mhm. foog naa ne moom ci la ah, bokk waaw bon moom ak suñu waa ji rek ñoom xaadima rasul xam nga ñooñu ulilal baa bi magi leen mhm. waaw kañ moo tax yàlla def leen li mu leen def moo tax su ma duggee <clears throat> damay ñëw damay faral di def benn air léegi nag gars yi dañuy captivé wu ci loolu est-ce que kon nag waaw sama gars yi ñu ngi waxtaan moom yàlla daal nee na lii baay bi nga xamante ne moom leen bëgg ci suñu xol soo bëggee baay da ngay mën muñ soo bëggee baay da nga war a muñ soo bëggee baay doo dégg mu ñu wax la lu bon nga delloo ko ndaxte baay nee na dégg naa lu nekk lu des baay ëmb na ah te baay nee na la bët bi may xoolee aadama kenn du ko xool di ko bañ kon nag taalibe baay dafa war a lu ci loolu xam nga soo leen ko waxee noonu mhm. ñoom ñu ngi dégg eeru firi bi alquran eeru Babacar Thiam eeru Baye Niass yenn saa yi donc dañuy captivé wu mhm. léegi nag loolu alhamdulilah yàlla may ma ci ba gars yi di ñëw ndànk-ndànk gars yi di ñëw ndànk-ndànk mais comme li may wax gars yi oote wu ma du ma muqadam du ma buqaaba du sëriñ du ma dara waaye taalibe baay laa bëgg a doon te taalibe baay mooy lan mooy kii dimbale moromam waaw moo tax nag damaa bëgg ñi ñuy seetaan direct nii buñ paree. Mhm. nga nga leen waxtaan <laughs> ci baay mais ci ci ci ci ci ci suñu maam ji Serigne Babacar bi. ndeysaan waaw kon yéen bokki internet yi ma waxtaan ak yéen waxtaan mi nag du gudd nag waaye nag luñ ci mën a for dinañ ko wax ndaxte sama waa ji laaj na ma ba wax ci yàlla kon nag dinañ wax ci yàlla li ñi bàyyi xamal mooy lan wa is qaala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi xalifa qaala taj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك yasfiku ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها فللي بنك ثم عرض على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يدلو تقي وإذ قال ربك للملائكة يلا ميغا قمان تري بوري عدنا بوري أسمان بوري سوف يوم موم جس ملائكة لين هيين ملائكة يي دما أم يتبو قمان تري موي لن موي تك في قليفة تكو سوف آه ملائكة يقول كنكو هي يو يلا نيغا قمان تري دينن في تور ñi nga xamante ne di dina am ñu lay ñàkk gëm am ñoo xamante ne duñ topp sa yoon ñun ñii nga xamante ne loo ñu wax ñu def loo ñu tere ñu ba ñun ñii nga sakk ñu ci leer nga bëgg a teg ñii fii ñuy xalifa foogoo ne ñu ñoo war nekk xalifa ci kaw suuf waaye yàlla mii nga xamante ne moom moo xam moo moo xam lépp mu jël aadama ne ko ma aadama al asmaa kullaha mooy lan jël aadama pelloo ak moom xamal ko turi turi yëpp turi yëpp nag mooy lan loolu du loolu du loolu du garab asmaa kullaha mooy lan mooy ci lépp loo xamante ne yàlla indi na fi branche yàlla xamal ko aadama ba tax aadama di moom ci boppam mën na ñëw ji orange ba génne ko ne ko lii orange la tudd yàlla waxu ko orange waaye nag la tax mu mën a xam ne orange la tudd wala fa la mën a jëlee xam-xam ba ne orange lii orange lay tudd loolu nag la yàlla jàngal adama yi yëpp kon nag ba adama na ñëw mën a sàkk ba sàkk table ba créer poster loolu yëpp jox nañ ko tur waaye tur yooyu nekku ne yàlla ko yàlla tour bim ko jox fofu moy tour yeb way tour yeb moy lan moy lépp lo xamantene amal nako may nako xam-xam ndax mu man ko jox djublu way kon nak wa alama adam al asmaa kullaha summa aradum ala al malaika fa qaala anbiuuni bi asmaa haula in kuntum sabiqin waaw yàlla delu wat nak ci malaika yi ne he yen malaika yi ndax kenn ci yen man na ma xamal tour yi nga xamantene xamal nako Adama Adama xool leen malaayka yi xoolante seen biir ne ah yàlla dëgg dëgg dëgg li ñu rek la ñu xam te dëgg dëgg yow yaay jëmi xam-xam te dëgg dëgg xamal nga aadama lu ñu ha kon nag mbir maa noonu waaye nag xoolal yàlla ak yërmandeem jël na aadama ne ko yow aadama xamal malaayka yi la ma la xamal aadama mujj jublu mujj tourné doon sëriñu malaayka yi kon nga xam ne nag fu ñu yàlla teg nag yàlla teg ñu ngir miim xadam dellu miim ndeel googu yàlla jox ñu cër ñu ñuy gën ci mbindeef waaw kon nag noonu la nekk na loo xamante ne ñun ñii doomu aadama yi loolu waruñ ko bàyyi ginnaaw war nañ xam suñu bopp xam sa bopp mooy lan natt sa bopp soo nattee sa bopp nga xool sa morom fépp foo toll nga tollale fa sa morom su boobaa di nga mën a xormal li yàlla amal de waaye nag nit ki soo ko gisee nga ne ko yaa ko gën kon gëm nga ne yow yàlla gënal na koo xamante ne moo gën lim gënal ah loolu de foog naa da nga juum loolu kenn rek la mooy ki nga xamante ne bam nangoo amal bam nangoo feeñ bam nangoo génn ci kuntu kënsalam googu mooy trésoram nga fan la xawee mooy ci gën ki gën ci li gën dina am suñu biir waaw am nañu baax am nañu bon yàlla waxaan na feneen ne sumun bukmun umyun fahum laa yarji'uun auzu billahi yàlla yàlla musal ci ñooñu waaye nag yàlla yàlla may ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñooñu la yàlla namm ñooñu la yàlla bëgg ñooñu la yàlla jox àddina ak àllaaxira ñooñu la yàlla yëkkati yàlla yàlla bokk ci ñooñu kon allahumma salli ala sayyidina muhammadil faatihi maa ughliqa wal xaatimi sabaqa naasiril haqqi wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim aali haqa qadrihi wa miqdaaril aziim allahumma amin <laughs> moom wax dëgg fa yàlla mbégte bi dafa yaatu ba nga xamante ni euh, maanaam Abdoulaye xam naa sax dañuy tëj ndax xam nga tax ñi mooy kelerton mii liñ bëgg ci jëmmam sax dëgg dëgg damay bëgg a xaar ba gàmm gi wees bu gàmm gi weesee bu ko defee ma ñëw toog ak moom mu toog ma toog bu ko defee ñu waxtaan bu baax a baax a baax li nga xamante ni sax mooy wàllum artiste bi ci featuring ak gars yi ak artistes yu mag yi nam dañoo nekk ci weeru gàmm gi falaa koy coupé bañ dem ba ñëwaat ñu mën a toog li ñu war a yaatal ñu gën ko yaatal xam naa nag gars yi doyaluñ mais loo leen di tàggoo. Ah, maa ngi nuyu képp ki nga xamante ne ah, bokku neen bokku neen moment bi di nuyu sama sama yaay sama papa. waa Medina Baye samay frères yi nga xam ne ñu ngi nii ak man heure bu nekk kon kii ku mel ni Baka Cissé ku mel ni Seka ah di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di leen wax ne anihan li ibrahima la hilaalu wa hilaalun badali nadirina jamaaluhu hilaalu rabi an fii jaa muhammadun fa tamalana lbushra wa hamma nawaaluhu ñu ngi leen di xaar Medina Baye ñu ngi leen di xaar Medina Baye wax ji du lenn lu dul Medina Baye kon nag Baye ngi leen di xaar Baye moo woote guddi yonent waxtaan ci ay meloom jukkoom ah ni matale diine naka la ko matalee lan moo tax mu gën ci mbindeef fii mooy kan kana tax ñu amal ñu su dee moom comme xam ngeen ko lan moo tax mu doon moom loolu yëpp gàmmu dala koy nettalil te Cheikh Ibrahima Niass dala ci indi leeral kon ñu ngi leen di xaar mi dina bàyyi euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu sama mbokku TikTok yi yëpp ñoom moom. Ah, waxuma la mention spéciale. Hmm. ñoom moom mention. parce que lépp lu may def ñu ngi fi. Hmm. nelawuñ lu ma dugal ñu partage hmm. te di leen wax ne xaar leen single yi am na benn single bu ma def ak sama benn rakk bu tudd Abi mu ngi ñëw voilà voilà mu ngi ni moo ko doon moo ko doon moo ko doon moo ko doon monté donc voilà Abi euh, moom itam nekk euh, zikarkat borom baat bu neex sama rakk wallahi lazim euh, nekk koo xamante ne ndeysaan bëgg naa daal àddina bi yëpp xam ko moo moo waral may def li may def nii yëpp ah, di ñuyu muqaddam yëpp ñi yëngu ci faydu bi di la jox sa tolluwaay sa wàccuwaay ah te di ñaan bokk ci sa yéeguwaay donc yal leen yàlla fay yal na leen yàlla fay yow mii moom xamal ne bis ni tey dama koy wax ñi ngi may gis xamal ne takk naa la freer sama karin nga sama frère nga lu tax ndax diineel islam ku ci bokk ak yow dara mm-hmm. da ngay normalement da nga ko war a jël comme sa frère waaw te gis naa ne ba pare nag da ngaa bëgg sama turandoor te man damaa fiir ci ku bëgg a bàyyi waaw mais yow moom d'accordoon naa la nangul naa la d'accordoon naa la <laughs> kontaan naa lool lool lool yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay yal na yàlla fay kii nekk ci caméra bi tam di filmer moom itam duñ ko bàyyi ah. ah waaw kon kon mu ngi noonu PDG kon PDG tam ñu ngi lay nuyu yow tamit mhm. di la wax ne liggéey bi nice na rafet na lool waaw yal leen yàlla fay seen xol daal loolu laa wasalaamaaleykum wa rahmatullah بحر سر وصنائي سمس رشد واعتدائي جنة القلب امتدائي لملاصي وصرائي